Euh, Madou. waaw jéena ba comme ni nga ko waxee tabara na ñëw sax eh, tabara <laughs> tabara kay donc comme ni nga ko waxee rek on va parler du hijab day hijab day bu ko déggee rek mooy maanaam mbiru muuraay donc mm-hmm. ki nga xamante ne euh, moom moo ko sooxe wala moom moo def initiative boobu ba tax léegi ñu koy fêté partout dans le monde mi ngi wuyu nag ci turu euh, Nazma Khan benn américaine la boo xamante ne donc ay origine am origine bangladaise la donc je pense que tonton mag dina ñëwoon foto donc moom moo sooke li nga xamante ne moom moo di hijab formation boobu nag faut juste savoir euh, lan lay consister mooy inciter à femmes yëpp yi nga xamante ne euh, muuru wuñu ak ñi nga xamante ne dañu muuru ñu porter euh, pendant vingt quatre heures li nga xamante ne moom moo di voile boobu pour faire comprendre que voile port du voile bi amul benn problème quelque chose de naturel la donc c'est arrivé moom xale bi elle est arrivée aux États-Unis à l'âge de onze ans mais dafa doon dem jàngi bu muuroo nag ñëpp di ko tooñ di ko kokkali mu dem nag màggale ak loolu di xeex li nga xamante ne moom moo di muuraayam boobu pour nit ñi xam ne que dafa normal moo tax mu commencé woon euh, jëb di ko def donc moo tax ñu tuddee ko the World Hijab Day mu nekk benn journée mondiale du hijab donc chaque premier février nañ ko doon def donc bi ñu njëkk organisé c'était un premier février 2013 donc en 2016 euh, nag 140 pays topp li nga xamante ne moom moo di World Hijab Day boobu def li nga xamante ne moom moo di seen ay photo donc je pense que tonton Mag wan naa ko photo yu bare yi nga xamante ne ay femmes yu bare ñu ngi koy def donc ay ñi nekk états nekk partout dans le monde porter voile bi donte sax du ñu ay femmes yoo xamante ne dañuy sol voile mais dañuy bunge nit ñi tout une journée sol li nga xamante ne moom moo di voile boobu parce que bu dee bitim réew dafa nekk à la limite xaw ma tabou mais dafa nekkoon daal benn complexe boo xamante ne mën nañ la dëkkal fenn euh, collé laak li nga xamante ne moom moo di ay Euh, terrorisme ak yooyu te alors ko du loolu wala di xas ni kon ce sont les femmes soumises yoo xamante ne dañuy déggal seen jëkkër doon ay jaamu seen jëkkër alors que du loolu looloo taxoon ki nga xamante ne moom moo di Namas Hann mi def ko donc nag yëfi def tollé ba nga xamante ne en 2015 ñu def ko fi nga xamante ne moom moo di Lyon en 2016 nag ñu defaat beneen exposé boo xamante ne dafa gën a mag fee nga xamante ne moom moo di Sciences Po à Paris mhm. donc le 20 avril 2016 euh, donc ñu tàmm nag ñun di ko féete fi nga xamante ne moom moo di ci plateau bi donc nan nan nag nañu choisir fêté ko xamante ne ay kóllëre Marianne woon parce que dañuy fàttali ko chaque année bu mu ne ma Madou ajuma bi de il faut ñu def hijab day donc mu boole woon ñu ak ki nga xamante ne moom moo di Tabara Gatou mu nekk elle aussi la première femme sénégalaise voilée à ouvrir un institut de beauté mhm. rien que pour les voilées ba ñu demoon fa sax def portrait wane lépp loo xamante ne dafay nekk mooy ay léttu ko raw amul lenn loo xamante ne dafay rax mhm. te dina yàq li nga xamante ne moom la suñu diine santaane di fay fekk dën di nga fa fekk ay létt karaw ay yëf yoo xamante naturel rawatina li nga xamante ne moom moo di muuraay boobu mu dem ci loolu doyu ko ba tey mu nekk ay femme femme boo xamante ne aussi day accompagner yeneen soxna ñu muuru mm-hmm. tey mun nañ si citer ay exemple comme par exemple damay njëkk ci bébé baas euh, soxna ki nga xamante ne moom moo di mm-hmm. Pape Diouf nga xamante ne avant elle n'était pas voilée photo yi ba tey mi ngi fi euh, ci tonton ak tonton mag mu ànd ak nag ki nga xamante ne moom moo di euh, tabaragaku tabaragaku di ko ci bungee di ko ci wone ba macha allah ñu gis ne que léegi c' est une femme voilée yow naa tant d' comme par exemple mun nañ wax ki nga xamante ne moom moo di Ngone Ndour muy jigéen bu ñu ràññee ci réew mi euh, mu di ko def amaat na ñeneen ñoo xamante ne tamit ay kilifa nañ ci réew mi comme ay journaliste suñu ay nawle euh, naataango je pense comme mel ni Ndourette moom tamit nga xamante ne elle le porte haut et chaque année da koy def Mia mi nga xamante ne c' est elle qui m'a vraiment poussé à aimer nga xamante ne mhm. moom moo di esthétique ndax dama ko doon seetaan bu yàgg ci télévision mère bi euh, macha allah Awa Mbaye de la RFM Awa Mbaye de la RFM y en a trop y en a tellement ay femmes leaders yoo xamante la muuru ah, Awa <laughs> ah euh, Mbaye ba tey tamit rek ñu àndoon ci ak ki nga xamante ne nag moom moo di euh, Fallou Kool xam naa ne moom laay tëjee ndax moom feddaliwaat na kóllëreem ak Marianne ak ñun te boole nañu ci njabootam ndax mm-hmm. mënoon na ne Marianne naax saay na rek mu fàtte waaye biñ ko ko wooyee def ñu ci bunge waaye li ñuy def rek dañuy laaj rapidement rek ki nga xamante moom moo di tabarak jàpp ginnaaw bu ñu ko dalee lay jàmm mu waxaat ñu wóor ijab day bi atum ren bi lan mooy projet yi et puis nag ki nga xamante ne daf ko jóg joto bunge muy kenn ku siiw ci réew mi muy euh, bébé baas donc naka la affaire bi euh, amee naka lay bungee nit yi. Euh, salaamaaleykum nuyu naa leen yéen ñëpp macha allah seen plateau daan na yaa ñëw mais tey moom dafa gën a yaa ñëw eh, macha allah eh, donc. Eh. wax nañu tensé nañu ba pare. d'accord bu ci tey moom plateau bi gën na yaa ñëw moom macha allah loolu moom moom c'est un fait euh, maa ngi leen di nuyu di leen sant si euh, euh, invitation bi di kontaan torop nag ci teewaay bi ma fi teew mhm. di ñaanal bu baax Marianne parce que vraiment lii lu mu yàgg mbëbët la lu mu yàgg bëgg chaque fois danañ ñëw ne ma eh, doo yónnee diw col yónnee diw col yónnee diw parce que ñëpp la bëggoon yéene en fait ñu am am am am si col mm-hmm. donc euh, wax hijab day bi en général comme 2013 la la commencé yàggul noonu mm-hmm. commencé guñ di def ay manifestation yu mag yooyu mais on le vit quand même mm-hmm. euh, on le vit personnellement parce que am na ay nit yoo xam ay xarit lañ même ay chrétiennes ñoo xam te ne juste deux jours elles font juste le voile pour te faire plaisir t'envoyer ça def ko statut euh, bon man si sama page aussi damay def ay jeux yu mag yow tudd nga léegi euh, bébé Bass vraiment ku ma la si si mm-hmm. parce que daf ko def loo xamante ne c'était très naturel mm-hmm. c'est-à-dire trois jours après qu'elle ait décidé de mettre le voile mm-hmm. elle m'a appelé elle a fait un shopping euh, naturel c'est-à-dire comme booy jënd sa saak comme booy c'était pas un truc extraordinaire en c'est juste pour montrer que affaire bi lu naturel la instant bi nga ko décidé def ba ne bul hésiter damal nga xool et du changer dara da nga changer tour ci diggante bi ci diggante bi donc y a rien qui change on reste euh, naturel on reste pareil mm-hmm. donc dafa nekk journée boo xamante ne journée de cohésion la mm-hmm. ñi nga xamante ne muuruwuñu ñu ñam lan mooy lan mooy kol ñam mm-hmm. neexaay <laughs> <laughs> c'est vrai dañuy neexal parce que je me rappelle l'année dernière Marianne <clears throat> dama da affaire bi dafa xawoon na kii. <laughs> mu naam sa toq seytaane bi nekk ci moom ah. <laughs> mooy génne muuraay bi. donc euh, c'est juste pour dire que c'est vrai depuis ñu muuru ba léegi je pense que ne que y a que le respect qui est qui, qui est là. Euh, mm-hmm. comme ni ko Oustaz Oustaz dafa dugg rek gisuñu voilà kanam mm-hmm. euh, euh, a des décisions importantes qui seront prises. pour chacune d'entre nous. et puis li si gën a important tey li ma gën a wone après naturellement ñu bëri dañuy ragal naan dañuy def pic dañuy dëgër dafa compliqué mais aujourd'hui j'ai fait exprès yéen ñëpp je vous ai mis des voiles sans pic indaalewu ma sax pic en fait donc j'ai rien mis mën nga ko def euh, yéen doog moom toute la journée ça te dérange pas def si accessoire def si sa accessoire voilà mu ànd ak sa yére donc euh, ça fait un plus en fait moi je trouve que ça fait un plus toutes les femmes sont belles mais le voile c'est un plus en mais je pense que ñiy jaay aussi ils ont remarqué que maintenant ça donne beaucoup ba nga xamante ne dañu gën a defaraat li nga xamante ne moom moo di style bi donc pense que aspect euh, commercial bi aussi parce que ont beaucoup changé par rapport ak kolu njëkk yi dafa am stage loolu lan nga a wax. non pour pour dëggal li nga wax man j'ai complètement changé de métier c'est-à-dire mm. que euh, de formation je suis financière. j'ai fait dix ans de de de de, de euh, d'expérience professionnelle su ma bàyyee loolu ndax kol ah. donc ça veut dire que la mm-hmm. chose je me réveille avec plaisir mm-hmm. di euh, je me réveille avec plaisir di ranger sama ay soulage je me réveille avec plaisir di xool ñan ñooy et aussi dama facilité bu bëri euh, par rapport à ça l'accessibilité justement parce que boo bëggee par exemple def col bu fashion euh, parce que euh, am na ñoo xamante dañuy am appréhension ne col yi dafa cher du ma mën a jënd et cetera mm-hmm. d'accord loolu aussi c'est vrai que man j'ai une petite histoire avec le voile parce que may soog a voile aw moon col ñaar laa amoon mm-hmm. maa ngi rappelé sax sama ay cousin dañ ñëwoon di col de pot lañ koy wax ah. ne dañuy def pas du tout donc euh, loolu noonu moom may poussé vraiment à faciliter les les achats man nit day ñëw bëgg jënd fulaar bu bëri ma étaler ko sur 5 mois. par exemple je fais des tontines euh, à petit prix nit ki ñëw du ko yëg ah, nga ñëw jënd sa fulaar bu bëri gàddu sa saak am na ñoom tamit c'est la première fois jour bi ñuy jël seen euh, tontine jour boobu la ñuy commencé muuru. j'ai eu plein de nouvelles voiles yoo xamante ne benn chaise chaise nouvelle voile laa ko tuddee. Mhm. su ñu ñëwee di essayer di xoolaataat bu baax nu ñuy gën a faciliter. tous tous les achats jigéen achats yu mu war a def yëpp muy maquillage. Euh, yëpp <laughs> voilà ba euh, mhm. euh, moom nañ leen indiloon te je pense que dinañ topp li nga xamante ne moom moo di voile boobu jël ñi nga xamante ne mooy ñaari femme tey yi ma garder en tête muy Ngoné Ndour ak ki nga xamante ne moom moo di bébé baas mhm. dem ci ñoom ta dékk leen sunu ay micro ñu wax ñu tamit lan moo leen poussé ñu dugg ci loolu et lan nañu ressentir buñ ci duggee ba tey donc incha allah dinañ ko def fii semaine prochaine et je pense que peut-être le hijab day euh, c'est le 1 février ça ne se fait pas mais incha allah le du ñàkk tamit ak ñoom tabara ak euh, yeneen femmes yoo xamante ñi nga am projet ku mel ni bébé base ci loolu dinañ leen defal euh, maanaam journée bu mag boo xamante ne ci gën a am lu leer donc je pense que ci kanam lay doon remercier juste aussi Dieynaba Seydou Ba ki nga xamante ngeen ko gisee donc il est joignable au 78 210 10 10 ci fin bi tamit on va le remercier à surtout calendrier yi nga xamante ni defal na ko ñun la ko defal parce que bu ko defalee Marianne ñun la ko defal mm-hmm. donc on va le remercier très très sincèrement ñaanal ko yàlla li nga xamante ni moom la mbébét ci wàllum liggéeyam yàlla antul ko ko musal ko ci cat lamiñ bala euh, donc inchallah on va le remercier Fallou à la fin de l'émission merci Tabara vraiment merci am nga cliente benn cliente <laughs> déclare mais bon pas tout de suite mais bon de temps en temps tu vois un peu. Mm. voilà dinaa ko def incha allah. merci merci Tabara merci beaucoup euh, Tabara Ijab Bey kon euh, euh, on en parlait donc bu nekkee.